Assalamualaikum, mbokku internet yu saint TV dalen ak jàmm sen émission bi nga xamni modi euh, jotay campagne bi donc tay nak ñi togal fi nga xamni modi di Alassane Fall bokk ci euh, coalition medicay 2019 Alassane ñu ngi lay ziar. do li ziar bu baax. di la bay nga nuyu mbokku internet yi. waaw merci Cheikhou ñi ngi nuyu ñëpp ku ci nek sa tour ak sa sante di rafetlu dalal bi ñu dalal fi ci télé bi. Euh, di tambalé sunu ay nuyo jëmele ko ci wa Sénégal gi yépp rawatina wala population saint-louisienne comme nous sommes à Saint-Louis. Mhm. Euh, di ci nuyu aussi tamit suñu leader à savoir maître Madické Niang ak ki nga xam ne moom lañ fi nekkal muy Adja Ndeye Marie Mbaye ñu gën ko xamee ci la Lionne de Saint-Louis. Mhm. Euh, bu weesoo loolu tamit euh, mënuñu lu dul jaalee tamit suñu mbokk yi nga xam ne yàlla def na dañuy génn àdduna ci période campagne bi di leen koy jaale seen mbokk yëpp nag. ok di leen ko masaw do am na solo euh, mu mel ni balaa ñu dugg si émission bi nag am na li nga xam ne ku fi jaar rek mhm. faaw mu wax ci waaw waaw muy maanaam ki nga xam ne moo fi nekkoon tey ñi toll ci maanaam wàllu mu euh, sept yi nga xam ni mhm. def na ko ci pouvoir bi waaw waaw nan nga gisee euh, bilan bi waaw comme niñ ko niñ ko ni ko ñëpp gisee la vous savez que Macky Sall en savoir le président Macky Sall gis ngeen condition yi nga xam ne moom la génnee PDS mhm. kon bu demee ba bi xam ne ma monsieur Wade à savoir que l' ancien président dafa doon briguer troisième mandat euh, par euh, frustration mën naa ne ak tamit euh, bëgg a assurer démocratie ñu jël suñu espoir teg ko ci moom ba mu fallu kon mom tamit bu demoon à travers son son discours mu mën wax ne carrément mandat bi nga xamné mom lañ ko waroon fal muy 5 ans mu dem ba ben instant delu ci wat ci ay propos delu si waat sept ans déjà lolu créé na ben euh jaxlé ci population bi. mandat bi waaw mandat bi muy benn boobu. Mhm. benen bi moy aussi tamit bilan bi moy manam liñu ñu ci mom ak liñu am ça fait am euh, amna am na la ngeen yaakaaroon. waaw parce que xam nga tey jii boo xoolee boo xool début bi bi muy wax naan dafay wax ne damay gouverner une gouvernance

accord yi ñu signé won ak enseignants yi respecté woon bàyyi ngeen def waaye grève yi non non non grève yi wàññeeku ba ah, parce que xam nga il faut le dire ah, déet way accord yi ak enseignants yi signé mën na né sax peut-être ñom ñi ngi wax naan ñu koy respecté wayé amna ay lenteurs jusqu'à présent benen bi moy on injecte énormément d'argent si ay secteurs alors que éducation suma jël éducation bi amna ay abri provisoire euh, so jëlé par exemple toujours si bilan bi on nous parle de terre bon, mën naa ne comprendre c'est une bonne chose mais à l'heure actuelle Sénégal li mu gën a ay urgence mooy ay hôpitaux case santé yi am équipement plateau médical bi waroon nañ ko maanaam améliorer waat tey jii bu ñu ñëwee ba mën injecter de l'argent ci terre bi te boo xoolee ba xool distance bi bëriwul mais tey jii le président Macky Sall dem na Thiès li nga xam ne maanaam tronçon euh, chemin de fer bi nga xam ne moo fi nekkoon mais bu ñu ko réhabilité li nga xam ne cheminots yi ñoo fa nekkoon ñu mettre la ne encore dans de bonnes conditions di leen fa injecter de l'argent boo xam li ñu def fee bëriwut Euh, du bëri te bu boobaa loolu dinañ ko mën a defaraat. mais yéen ku leen topp na du liggéey parce que yéen ngeen bëgg di critiquer saa su nekk lu mu def ngeen ni war woon def lii lii la war def te bu defee lee ngeen defar bàyyi di def lii. non man xam nga critique bi xam nga tamit bi boo xoolee bilan bi bu am solo la quoi. non xam nga am solo ci kan bilan am solo ci kan parce que il faut le dire xam nga yàlla rek a tax ñuy wax. Mhm. mooy il faut le dire Sénégal tey jii boo xoolee ba xool ci wàllu ah kii les agents de la santé am na ñoo xam ba léegi seen statut kenn xamul fuñu nek muy benn bopp. hôpitaux yi li ma doon wax ni suma jëlé le cas de Saint-Louis yow tay ji bo xolé bo xal am ñoo xam il préfère aller se faire consulter à Dakar. que di consulter. waaw loolu moom ah, xeetu bëgg-bëgg la rek. mais du yoon déedéet du yoon parce que tey jii bu ñu waxee ne carrément dañuy def décentralisation des structures sanitaires des structures de soins dañuy bëgg population yi déplacement yi ñuy déplacé wu. Mm-hmm. Saint-Louis à Dakar wala de Saint-Louis à Thiès wala yeneen dëkk. dan naan ñoom kat li ñuy déplacé wu jarul ñu koy déplacé parce que lañ nga xam ne moom ñu ngi koy wëri Dakar wala ñu ngi koy wëri Thiès bi ñu nekk am na fa. ok donc ñu ñu avancé. waaw am ah. donc gis nañu aussi tamit seen diggante ak euh, ñu dugg ci campagne bi. ak Abdoulaye Wade gis nañu temps yi. góor gi génn fu nekk. waaw leen sama mboq bi. waaw bàyyi leen sama couleur bi. waaw waaw mu leen dem nga li ñu naan. couleur bëri na lool ñu wax naan xam nga couleur soo ko gisee li ñu wax naan identité lay jox par rapport ak candidat bi. Mhm. mais aussi tamit bu ñu wax ne couleur bi diw moo ko moom

Et puis de maïs bob non mais ñun on a ce qu'on appelle la calabasse. non calabasse yéen la rek mais. non man li ma bëgg wax exactement pas ça, ñuy concentré wu ci couleur beeg yooyu. mais en fait relation bi nekk ci diggante maître Abdoulaye Wade. ak euh, maître Madické Niang. waaw maanaam lan moo dox seen biir ba mun ñu am entente mën a ànd non ça di dégg nga ay déclaration yoo xam def na ko ñii naka naka bàyyi na delloo euh, li nga xam ne poste député beeg yooyu noonu. quoi. il n'en est pas question parce que ay delloo poste député bi parce que quand on a élu maître au niveau de l'Assemblée nationale c'est la population qui ñëw ne au niveau de la structure parlementaire défendre les intérêts mm-hmm. maintenant le problème qui se pose l'arrivée de Wad au niveau du Sénégal mm-hmm. tout le monde le sait Wade monument le symbole mm-hmm. mais nous, avons au niveau de au niveau du Sénégal il faut nous analyser ko man concevoir ne peux pas ne fi est Karim Wade mon présenté candidat pour être président mais on ne sait jamais de manière maanaam euh, euh, euh, pas précise ñun xamuñu lan moo ko du Sénégal gars yi wax nañ ay ak mais le plus important il y a des populations qui ont fait des marches gars yi xeex neen dem au niveau du tribunal pour Madame ne serait-ce que faire assurer Madame que Karim Wade mën a présenter wu comme candidat mais ça n'a pas été mais ñun li ñu bëgg a xamal mooy que ki su fekkee na fait, koy xeexal te mu wax ne moom réew mi lay laaj. moom lu ko réew mi jaral lépp. loolu nga foofu man li ma bëgg wax foofu mooy. Hmm. man su fekkoon ne man dans mon entendement dama naan Karim Wade bu fekkee ne ay nit dañoo xeex di pare. Hmm. dañoo dañu pare pour xeex pour moom. te moom réew mi jaral ko ko man dama naan su fekkoon damay ñëw sama réew sax ñu tëj ma ñu xam ne man kat je suis venu rien que ne sa ce que pour mon pays quitte à ko ñu tëj ma. parce que Khalifa Sall la ngi nii tëj nañ ko gars yi fi mu nekk ñi ngi xeex pour mu génne. Moi, si ne mënumaa pas à l'étranger ay nit ñew dima ma la guddeeg man carrément réew mi suis soxla té réew mi jaral waral ngeen juk ensuite mhm. la la la présentation de de de de de maître Madické mhm. mais c'est une aubaine xamul tax mhm. parce que tay ji mën nañu wax ne dans les normes les libéraux Mm-hmm. ñoom xam ne ne carrément rapport bi amoon entre Madi Kenya et le président Abdoulaye Wade. man rapport la mooy rapport boobu le cas entre entre un père et son fils. ñoom jaar nañ fu nekk te c' des choses yoo xam te ne jarul sax ñu wax parce que nous, xamoon ne ne ah Madické Niang fi mu jaar ak le président Abdoulaye Wade. même ba ci affaire marché bleu bi ba fi ñu euh, Abdoulaye Wade nekk président amut leneen lenn lu nga xam ne maanaam Madické Niang defu ko. sacrifié ko pour Abdoulaye Wade kon tey jii man la venue de Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade mënoon na ñëw sax ne kat comme mon fils. Karim n'a pas été reçu pour être candidat au niveau de la euh, de, la présidentielle man Madické Niang fi ma man en tant que mon père mon amour naa man un père politique mënoon naa ñëw carrément man je vais apporter mon soutien à maître mudi kenya ok mais actuellement fi même les euh, entretiens yi c'est son droit. Mhm. mais le plus important nous fu fait doon wax Nous ko doon Nous son appui ok euh, bilan Nous ngi donc gis Nous tamit ci bilan à chaque instant justice lay Nous lay gëna fessel Nous ay bilan donc yow si en grosso modo nga jëm ko bilan des Nous non xam nga bilan su justice parce que ko c'est un homme de droit. Mhm. c'est un juriste il connaît la loi. même si ay dossier yu bëri yo xam mom ne géré wonnako. kon xamna lan moy yoon. te ñu on s'est rendu compte que les du gouvernement du temps de Macky Sall fini les cinq dernières années surtout même les deux ans yi nga xamné problème mu présentation à la candidature. Mhm. ñepp gis nañ né carrément y a des candidats qui ont été condamnés. te ñu xam ne maam leur condamnation dañ ko teg ci affaire maanaam une justice boo xam te ne à deux vitesses alors que quand tu vas assurer la stabilité d'un pays li ci gën a impo important importance dafa bokk ci maanam justice maanaam waroo fexe ba maanaam ñi war a dem ci yoon wala fa mbaxana doonee benn nga war a def xàjj ak seen kon donc loolu aussi tamit soo gisee maître ne carrément su ko yàlla dimbalee ba mu nekk à la tête maanaam de ce pays dina bokk ci li nga xam ne maanaam mooy wàllu justice mu def ci ay réformes. mais bëri tamit ñu gis si bi dëgg la justice bi solo trop. mais dafa mel ay copie collé la ñuy faral def maanaam xool li fi Macky day ba pare ñu daal di jël ay copie collé di wax si programme yooyu noonu. li parce que maître dafa programme tamit saa yi des na kii quoi. non non non xam nga xam nga ñu bëri dañuy wax naan copie collé xam nga liñ mooy problème moy le Sénégal n'est pas un pays comme les autres. parce que tay ji da nga naan man kat so xolé diw bu fekkene dafa def li ma sentir né carrément li mu def ni kat mënoon nañ ko gënon améliorer man suma ñëwé dama naan man li mu def ni kat boron na ko gën mëna améliorer parce que il faut le dire on parle d'émergence dafa am li nga xamné Sénégal assuré na moy mooy la stabilité territoriale parce que réew mënoo développer. développé amo manam garantie wul stabilité ñun avons une chance bobu. amul ñu nekk ñu dëkku gerte yàlla si yàlla benn bi moy le système éducatif un pays ne peut pas être émergent si sa population n'est pas instruite n'est pas formée pour participer à l'émergence du pays un pays ne peut pas être émergent si par exemple sa population n'a pas une structure sanitaire de de base wala une structure qui xamante ne dina assurer des soins et santé te loolu population bu waree faju condition yi muy fajo warul doon jafe-jafe defar un plateau médical de construire un hôpital de niveau 5 de former un personnel qualifié pour de sorte que les produits ñu soxla woon duñ ko à l'étranger mais am na si ñoo xam ne dañu dem à l'étranger te loolu waru yoon ñaareel ba euh, di moins ñetteel ba quand on parle de l'autosuffisance mais ñun au Sénégal si je prends la région de Saint-Louis la vallée là à elle seule on assurer l'autosuffisance au niveau de du Sénégal. Mhm. la Casamance la même chose. Mhm. et ce n'en parlons même pas quand on prend par exemple le phénomène euh, l'agriculture au niveau de Xelkom. ce mhm. yëpp ngay c'est des choses où le Sénégal waroon autosuffisance. am autosuffisance boobu léegi nag boo boolee il y ñu le dimbali ñu am temps yi le pétrole am wax gaz a le zircon a ce qu'on appelle euh, au niveau de sabodola l'or qu'on a là-bas quand on tey lan a empêcher le Sénégal donc au niveau du gouvernement. mais non, non, Sénégal Non, non non non non, non non non, non, non, non, non, non, non, non, mais non, non, non non, non, non, Macky non, non, non, non, donc non, non, non, non, non, non, non, non, non, mobilisation. non, mhm. a non, non, non, non, non, campagne non, mais non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, mobilisation. non non non non, non, non, non, non, remarque non, non, non, non, non, non, non, non, campagne tu vois un monde fou ñooy ñëw ci campagne dafa am ay nit ñoo xam te dañoo ñëw parce que dañ kumpa moo leen tax a ñëw. da ngay gis ñoo xam dañuy déplacé dëkk nga ñëw quand su ñëwee day ñëw ne kii de ñi fi nekk ñëpp waa dëkk bi la fekk tu as euh, ramené des gens yoo xam ne yeneen dëkk lañ jógee yow nag bu ko defee da ngay jàpp ne lii mooy mbooloo bi. Mhm. ensuite y a ce qu'on appelle la bataille des urnes ñooñu noonu di ñëw si sa campagne nga jàpp ne mbooloo boobu ñoom ñooy voté ñan ñoo ci am carte électeur. d'autant plus que au niveau des cartes électeurs il y a pas mal de problèmes su ngeen wootee récemment boobu noonu gars yi ñëw yéen li mooy mbooloo bi non mbooloo bi am na solo mhm. mais l'objectif ce n'est pas du bi mooy l'objectif mooy que les gens qui viennent à ce meeting wala à ces rassemblements puissent entendre leader veut dire ba bu defee ñoom bu ñu demee ils seront des parce que man su ma ñëwee ci benn meeting damay ñëw du naanam xumbaay beeg tàccu bi damay ñëw ma ne damay déglu candidat bi lan may wax ba bu ma demee man dinaa toog ma dem mën a settanteel ne candidat man kat wax na ma lii lii kat dal na sama xel su ma demee mën naa ko votel mais du caagin maanaam da ngay ñëw nii moo tax il faut faire très attention ñi ngay gis nii ñëpp ñoom ñu def ces meetings la grandiose dépenser de l'argent xottil ay nit ak yooyu am na solo lool mais le plus important c'est de tenir un discours boo xam te ne avec un programme boo xam te population dinañ ci gis seen bopp. comme ni ngeen koy defee quoi rajax. du rajax xam nga rajax bi moom boo ko déggee c'est-à-dire ñun maître. Ah c'est un gars boo xam te ne c'est un gars boo xam te ne kii song mooy maam soo déggee mu naan dina fa toj wala dina rajax boobu c'est façon de dire que la fa dañoo jàpp ne dafa baax te baaxu ci askan dañ koy génne. Mhm. indi lu bees. mais mais mais nekkul ma kese nekkunu euh, ma dikka ñaa ci euh, wàllum campagne beeg est ce que rek pour jéem a wut ay pourcentage yooyu noonu parce que du moins est que mën nga gis ni carrément que li nga xam ne moom la moom la indi comme programme war na mën a tax tamit gars yi mën a parce que da ngay xool Alassane. ma dikka hmm. Saint-Louis la dëkk. waaw yaa ngi Saint-Louis. waaw tey tey gis nañu carrément que euh, Ndar ñaata poste depuis ñaata poste ministre la fi la fi la fi ma dikka yor woon. waaw booy xool fii xam ne def na ko fi. waaw Ndar. non non non cest xam nga bul ne amul lo fi xam parce que Madické ñu bari dañuy wax naan lu fi xam xam nga tay ji mhm. ki nga xam ne président. Mhm. que je respecte beaucoup nekk fi. Mhm. ñun quand tu fais euh, la. la, quand tu observes la situation actuelle, le président a fait un déplacement. Nous, on s'attendait à ce que son déplacement, su de une usine. wala non, non, ça ça donc carrément que war na mën a def ndar li nga xam ni ñun ñu mën a jël suñu jox ko parce que depuis nga yor ay poste ministère yu bëri yoo xam ne fii biir ndar te mosoo fi def dara mais looloo fi war am looloo fi war am sax te am nañ si yaakaar ne les gens vont lui donner maanaam leur voix les gens dinañ ko dinañ ko votel mais est-ce que waru ko woon def loolu ba mu nekkee ba ministre ne ba mu nekkee aussi tamit ministre loolu la doon def mais da ngay fàtte yow fi non ko bëri fi même du point de vue des jeunes am na si ay jeunes yoo xam te ne bi nga xam ne na fa ay amoon ay jafe-jafe pour yóbbu yenn nit ñi à l'étranger pour ñu poursuivre leur formation mais ñoom ci moom par le biais de son frère am na ñoo xam am ñoo peut-être resté nañ fofu mais di di liguey manam di dimbali sen jabot. maintenant sagam lool moo koy def ba muy nekkee ministre mais s'il par exemple demande à ce que la population jox ko manam les voix pour mu devenir président mhm. kon il aura manam tout la puissance, tous les, moyens pour permettre à à, l'émergence de ce pays parce que il faut le dire mm-hmm. émergence chaque jour nga des cas image comme image émergence émergence certes nous concevoir ngay ay autoroute di défar hôpitaux mais quand tu dois construire ces trucs là da construire en fonction des priorités actuellement fi Sénégal nous sommes soxla Nous bëgg que les jeunes après leur formation puissent intégrer des structures lors de il faut installer des usines il faut installer des services il faut installer il faut construire des écoles ndar gii rek nga dans le secteur de l'éducation, on a on fermé ici pas mal d'écoles. Mhm. mais écoles sont noonu tey jii bu fekkoon visionnaire école yooyu bu ñu xamee état de délabrement bala lool waro nañu jël les dispositions pour construire yenen établissement bu ko défé bu ñu tëjee entre temps dina am feneen fu leen polariser mais lool amul des gendarmes waxuma sax yeneen région mais Ndar c'est une ville boo xam presque li regroupé mo sur le plan climatique. Mhm. Ndar a une possibilité manam façon culture bu nek mën nako def. Mhm. c'est une c'est c'est une région bo xam te ci walu manam euh, euh, euh, tourisme. Mhm. Ndar yorna fofu aspect bobu benen bi aussi tamit moy c'est par rapport aux aux universités. Ndar fim nek ko xol université bi université mhm. d'excellence là mhm. mais ces dernières années quest nga ko li fi xew ak la la euh, ce qui s'est passé avec l'affaire Fallou yo yo yëpp te daaw fi am. non xam nga tamit yooyu wax la pour pour dire moi yëngal li fi nekk ni rek parce que parce que yooyu moom je pense que jarul toll nii parce que en 2012 en 2012 moo gënoon metti te te te bàyyi nañ mu non non non xam nga bu wax ne carrément 2012 bàyyi nañ mu jàll ñun xam lu ñu wax. Mhm. li nga xam ne 2012 qu'on apprenne de ces erreurs là dans l'avenir duñ ko am que ñun tey jii ñun mën nañu wax ne carrément le problème des bourses ça doit être réglé parce que l'étudiant, quand il doit étudier il doit être à l'aise mënul ñëw nag li nga xam ne moo permettre mu mën a jënd ay tikkeem wala maanaam s'épanouir jënd def ay petites dépenses am mhm. état bi yor ko te ngay dégg à gauche à droite def ay dépenses yoo xam te ne feneen te mu leen lii c'est une priorité nga war ko def defoo ko ba nit ñi maam di sécher les ku wala des fois di yàq loo xam te ne maanaam ça appartient à à l'université kooku c'est pas normal ok waaw donc donc donc amna solo bëggoon aussi tamit gëna yaatal. waaw mais temps bi xoj nañu. waaw waaw donc ñun dañuy dañ lay bàyyi rek nga daal di euh, lancer sa message parce que bientôt je pense que fii quelques jours moo dess waaw ah, ñi ñi ñi ñi arrêté ñi arrêté campagne bi. waaw donc ban message ngay lancer ñi nga xam ñoy sa ñoy sa ay militants ak ñi nga xam ñoy lay. ñoy lay seetaan mi ngi noonu donc kon man message bi may lancer c'est un message de paix parce que ñun Sénégal ñun ñëpp ñun ñoko ko bokk ñun ñëpp benn leen. maanaam ku ci nekk su wàllu voté jotee demal nga def maanaam sa acte civique votel ka nga votel dellu si te ñu xam ne maanaam réew mi moom yàlla wax na ki nga xam ne mooy gagné. Mhm. te ñun am nañ yaakaar ne suñu candidat bi mu Maître Madické Niang mhm. moom tamit moom wax dëgg am nañ si yaakaar bu baax waaw bu boobaa mhm. beneen bi aussi tamit mooy may may may lancer un appel pour ñi nga xam ne aussi tamit euh, ci wàllu kii bi nu mu tee sax euh, campagne bi parce que xam naa ne bien que ñu ngi kii mee des na ñaari fan minimum nee neen carrément ñu def ko toujours si si si jàmm ak yooyu noonu ñaan daal. Mhm. Euh, yàlla defal fi jàmm. Mhm. Euh, suñu kilifa di suñu borom yi sàmm leen. Mhm. suñu leader suñu borom sàmm ko ba maanaam yaakaar bi nga xam ne am nañ ko ci moom suñu borom mottali ko. que nga xam ne Sénégal ñun ñëpp benn leen. waaw di remercier ñëpp ñi nga xam ne suivre nañ émission bi di la remercier yow mi tamit. di remercier suñu jigéen Adja Ndeye Marie Mbaye moom ak famille bam yëpp nag euh, di remercier les parents ak un peu partout ñi nga xam ne ñoo ngi suivre fii. la famille basée à Dakar ak ñëpp daal ñu ngi leen. merci merci Alassane donc tey. moom la fa amoon comme invité mu ngi Alassane bokk ci coalition ma dikkee hmm. donc ñi ngi rafetlu aussi tamit euh, waxtaan bi ak hmm. nangu beeg yëpp ñoo koy ñoo ngi koy rafetlu bu baax donc bu defee rek di jox dikk ak daje si yeneen numéro incha allah incha allah merci beaucoup jërëjëf